moo tax mu ne qul waxal yow sayyiduna muhammad sallallahu alayhi ne yaa ahlal kitaab hee yéen yahood ak nasaraan astum déet yéen ala shay'in ngeen di nekk ci dara lu kenn konte xataa tuqimoo bata ngeen jëfee hee a tawreet a tawreet wal ak linjiil wama ak téere ba nga xam ne unsila wàcceef na ko ilaykum jëm ci yéen min rabbikum bàyyi ko seen borom ngeen jëfee li yàlla wàccee mu bàyyi ko ci seen borom te mooy alquran ak gëm yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala yasidanna wallaahi dana dolli kathiran ñu bëri minhum ca ñoom maa la nga xam ne unsila wàcceef na ko ilaykum jëm ci yow min rabbikum bàyyi ko sa borom dana dolli leen tuxyaanan ak mbewte wa kufran ak ak weddi waaye falaa tasa bul jàq alal qawmi waral nit ñi kaafiri ñi di way weddi bu ñu la gëmut de inna lisi daal ñi nga xam ne amanoo gëm nañ wala lisi ñi nga xam ne haadoo wax nañ ne ñoom yahud lañ wa saabiuuna ak kuréel bi nga xam ne dafa xàccee ca yahud yi di jaamu ay biddiw wala ñuy jaamu ay malaaka wa nasaara ak ñi nga xam ne dañoo wax ne ñoom tamit nasaraan lañ man amana képp koo xam ne gëm na ci ñoom billaahi ci yàlla wala yoom bis àxir mujj ba wa amila mu jëf saalihan jëf ju baax falaa xawfun déet ak ragal alim nekk ci ñoom ci àdduna wala hum déet ñoom tamit yasun ne ñuy jàq ëllëg ci àllaaxira kon yàllaa ngi dànkaafu ahlu kitaab mu yëhoot ak nasaraan yàllaa ngi leen xamal ne nekku leen ci dara lu kenn konte lu dul ngeen jëfee tawreet tawreet nag mënu leen koo jëfee mukk gëmu leen sayduna muhammad mu yéen waa nasaraan yi mënu leen a jëfee lin ji lu ngeen gëm sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax yonentu yàlla isa béggaloon na leen ki ñëw ak yonentu bi ci yaati min ba'di ismuhu waaye nag li nga xam ne moom la yàlla wàcce ci ñoom muy gëm yonentu tubi sallallahu alayhi wa sallama alquran ñëw di ko firndeel ak mbewte ak ak kéeféer rek weddi la leen di dolli ñi wax na yahood lañ ñi ne nasaraan lañ ak ñi xàccee ci diine yahood ku ca gëm yàlla gëm bis bu mujj ba di ko jëfal doo xam benn problème fii ci àdduna doo xam tamit benn problème ëllëg ci àllaaxira saabiwu na ab kuréel lañ bu doon jaamu ay biddiw ñenn ngeen ne ab kuréel lañ buy jaamu malaaka kon yahood ak nasaraan daal seen diine jañ nekkoon valabaloon na ci jamono yonentu yàlla Muusa ci jamono yonentu yàlla Isa waaye bi yàlla yónnee Seydunaa Muhammad ba bay àdduna bi tukki benn diine dong moom la yàlla valable mooy lislaam ku ca nekk-nekk ca dara ku ca ne newoo ci dara wa man yabtaxi xayra al islaami diinan falan yuqbala minhu wa fi l axirati min alxaasirin inna diina inda allahi al loolu yàlla wax na ko kon lislaam daal mooy diina joo xam ne ku ca ne nekk nga ci dara ku ca ne néewoo ci dara su ko defee nag inna alladina amanu walladina haadu mubtada la wa saabiuuna yi def ko ca ataf wa nasaara am nañu jàpp ne dañ koo badal ca mubtada ma waaye am nañu jàpp ne maxtuuf la dañ ko caa ataf rek waaye lu ca mën a am ku ca gëm yàlla ci ñoom gëm bis bu mujj ba rek doo am tiitaange fii ci àdduna boo ëllëgee tamit doo am tiitaange ëllëg ci àllaaxira aaya ji tegu ci yàlla ngi ciy wax kóllëre gim jàppoon ak banu Israil ci war a gëm yàlla gëm yonantu yi waaye mu ne man yàlla saa yu ma yónnee ay yonantu ci ñoom ñi indil leen lu wuuteeg la seen bànneex bëgg rek ñi weddi yonantu ba xam na ki ñoo xam ne sax dañ leen a far rey ñañ rey Zakariya ak Yaxya ca la bokk ña ñu weddi Shahyau ak Armiyaawu ca lañ bokk bañ leen weddee nag def jëf ju bon ca ñoom ñu tuub yàlla kat lu sa loxo bi taq-taq boo ko tàllalee mu jël ko mu nangu seen ak tuub ñu toog fanweeri xat delluwaat ci seen ak caay-caay yàlla yónni yaxya yónni sakariya ñi mujj ray leen yarab yàlla nag doora dal ci seen kaw kon yàlla ku baax la boo ko tooñee lu tooñee rëy rëy rëy rëy boo ko tàllalee sa loxo mu jël ko waaye bu ko xasee jël nag boo delloowaatee ca tooñe rek bu yar ba ñëwaatee dootut mooyati loolu nag moom lay wax si ci kóllëre googu nga xam ne jàppante woon na ko ak ñoom ci aayaat yi ma bëgg laa firil moo tax mu ne laqad axas naa wallaay sa dëgg-dëgg jàppoon nañ misaaqa bani israila kuléeg bani israila gi kulirante woon ak ñoom ci gëm yàlla ak gëm yonantu yi wa arsal naa ñu yónni ilayhim jëm ca ñoom yónni woon nañ jëm ca ñoom rusulan ay ndaw waaye kullama jaahum saa yoo xam ne dikkal na leen rasulu ndaw tukkee koo ca ndaw yooya bi maa laa tahwaa mu ànd ak loo xam ne sopput koo anfusuhum seen bakkan ya ci dëgg su ko defee ñi weddi fariqan kuréel ca ndaw ya kazaboo weddi nañ ko wa fariqan kuréel ca ndaw ya na sax nañ di leen rey muy Zakariya ak Yahya su ko defee tamit waxasi boo njortoon nañ àllaa takku na ba ñàkk a nekk fitnatun benn fitna ah, maanaam ca ray gañ ray yonantu yi ak weddi gañ leen weddi fa moo ñi tëx walis dégg dëgg su ko defee fa amoo ñi tëx walis ñi gis dëgg wa sammoo ñi ñu maanaam fa amoo ñi gumba walis ñi gis dëgg wa sammoo ñi tëx walis ñi dégg dëgg dégg ak nangu su ma taaba topp nangu na tuub laahu yàlla alayhim ci ñoom bañ tuubee su ma am moo topp ñu gumbalaat wa sammoo ñi tëx yoonu ñaareel wa diggante bi fanweeri xat la ñu tëx ñu gumba mu bale ke ne kasirun ñu bari laa minum ca ñoom wallaahu yàlla basirun aji xam la bi maa yaamal xam ne ñu ngi koy def danaa leen ko fay de loolu tamit dafay junji distance bi ñu weddee yonentu yàlla armiya waaye nag bañ ko weddee weddi shaaya ñu mujj tuub sellal tuub ga lool yàlla nangul leen ko ci mbaaxam ak yërmandeem gannaaw si gi nag bañ dundee lu mat fanweeri xat ñi delluwaat ke seen caay-caay ga di yàq suuf moom la alquran la tufsidanna si ardi maratayni ar di fil ardi maratayni su ko defee yoon wu njëkk wa nag mooy ba ñu weddee yonantu ya yoonu ñaari la mooy bi ñu rayee yonantu ya di sa kër yaag yaxyaa ñu foogoone nag loola kat dara du leen ca fekk waaye nag bañ defee loola nag yarab yàlla ba mujj na dal ci seen kaw mooy mbugal leen moo tax kon daal yàlla ku baax ku bari yërmandi la loo ko tooñ lu tooñ rëy rëy rëy rëy rek soo ko jéggaloo moom mu jéggal la waaye bu la jéggalee nag nga delluwaat ci tooñam ya yarba bu ñëwee dootut mën a moyati kon loolu lu jara bàyyi xel la te loolu moo mooy li leen dal yàlla xiirtal buxtu nasar ke ñoom mu rey leen jàpp leen ni ay jaam ndax yàlla moom bala boolee ku baax nga bañ koo nangul mu indil la ku bon te doo ko sañ a nangul mu teg la lu gën a métti fuuf la la tegoon dig la ca ay duma te doo ko mën a mën a moytu kon nag yàlla ko xam fulla la su la wooyee ci teraanga pour teral la nga bañ mu dugal la ci mbugal te doo ci mën a génn ti safara ak aljaana loolu dong moo ko waral aljaana du dara lu dul kër la gu yàlla tabax muy kër ak nganale mu ne na ñëpp ñëw ma teral leen ñu dëgër bopp na ñu ñëwuñu mu ne kon naa tabax safara ñu bañ a ñëw ma mbugal leen kon nag loolu mooy dayop tabaarakallaahu tabe ci yàlla kon nag ñoom ba ñu demee weddi Saayaawoo ak Armiyaawu hitti woon nañ sax dem nañ sax ba mujj rey leen hee waaye nag yàlla xirtal ci seen kaw buxtu nasar mu boole leen ñoom ñëpp def la ñi mu jël leen ay prisonnier ràppal baytil muqaddas ñu mujj nekk ci dayoob toroxtaane ak doxadi bañ tuubee nag ah benn buur ci buur buuri farisiya moom tamit ñëw ci ñoom ba mu ñëwee rey buxtu nasar delloo leen ci seen dëkk booba ñu nekkoon muy xutsu ba ñu bëree nag ba mu jéggi dayoo diirëb bi fanweeri xat su ma amoo wasam mu ñu bokk maanaam gumba ak ak tëx yàlla ba rayaat yonentu yàlla Sakariya ray ko ñu ray ko ray Yaxya yàlla tamit xiirtal leen xalak leen tabaarakallaahu ñoom ñooñu ñëpp moo tax mu ne la tufsiduna fil ardi marratayni loolu lañ namm ca loola su ko defee kon nag euh, loolu lu jar a bàyyi xel la moo tax sama borom ne la laqad naa wallaay sa dëgg-dëgg jàppoon nañ misaaqa bani israila kóolu rek banu israila gi ci gëm yàllaa gëm yonantu yi wa arsalnaa yónni woon nañ ilayhim jëm ci ñoom rusulan ay ndaw la kullama jaawum saa yoo xam ne dikkal na leen rasulu ndaw bàyyeekoo ca ndaw yooya bi ma laa waa ànd ak loo xam ne sopput ko anfusuhum seen bakkan yi ci dëgg fariqan kuréel ca ndaw yooya kazaboo weddi nañ ko wa fariqan mbir moomu kuréel ca ndaw ya na mbir moomu sax nañ di leen rey ñaari jum jumla yi xaal la wa xasiboo njortoon nañ ne allah na ba ñàkk a nekk fitnatun benn fitna ndax nakira bu ñëwee ci siyaaga naf yu dafay matale fa ammoo ñi gumba walis ñiy gis dëgg wa sammoo ñu tëx walis ñiy dégg dëgg dégg nangu su ma taa ba topp nangu na tuub gannaaw bañ tuubee laaw yàlla àlleem ci ñoom su ma am moo topp ñu gumbaat eh, walis ñiy gis dëgg wa sammoo ñi tëx walis ñiy ñi ñi maanaam walis ñiy dégg dëgg ñu ñu tax ak ñu gumba kasirun ñu bari laa wax minum ci ñoom badal la nday bañ nga dugal ko ci akkaloo nii baraaxiis wallahu yàlla basirun aji xam la du xam ne ñu ngi ko dana leen ko fay de laqad kafara wallaay sa dëgg-dëgg weddina la si nañ nga xam ne xaaloo wax nañ ne inna laa naka yàlla huwa moom almasihu mooy masih ibnu mariama mooy mariama wa qaala wax na moom almasihu masih di leen weddina yaa bani israil bani israil yaabudu na ngeen wétal laa yàlla rabbi mi borom sama wa bar rabbukum te seen borom inna woo naka lay mbir tey mbir man yushrik képp ku bokkaale bi laay ci yàlla ci jaamu bokkaale bokkaale ko leneen faqad harrama dana xaraamal na laahu yàlla te mooy xeñ na moom yàlla alayhi wala ko gën a taxal jana wa ma waaw tàpp waayam annaaru mooy safara wa maa lil xaalimina déd ñeexal tooñkat yi min ansaarin ci kenn ku leen di dimbale duñu xam kenn ku leen dimbale laqad kafara walaay sa dëgg-dëgg wéet na si ñi nga xam ne xaaloo wax nañu inna laa naka yàlla saalisu salaasatin mooy ak ñetteeli yàlla ya yàlla yàlla la isa yàlla la yaayam yàlla la kuréel la ci nasaraan yi yàlla ne wa maa min ilaahi amul jenn yàlla ilaa ilaa ilaa ilaa ndere yàlla waaye du jey jenn rek wa in lam yantahu su fekkee daytaluñ amma yaqulu si nga xam ne ñu ngi koy wax ci ñetteelu yàlla yi bañ koo wéetal la yamassanna dana jotal sa ñi nga xam ne kafaroo weddi nañ lu leen minhum ca ñoom lu leen lu leen jot azabun mbugal alim na may bërëm ak méttital afala yatuubul taa ñu tuub ilaa jëm ci yàlla wa yastaxfiroon ñu jéggalu ko te xam ne wallaahu yàlla xafarun jéggalaa ko la ñeel képp ku tuub rahimun borom yërmën la ci képp ko ci képp koo xam ne ba gëm na ko mal masihu déet masih ibnu mariama kay doo mariam illa rasulun ab yonantu qad xalat wooy na min qablihi ji li ko jiitu woon rusulu ay yonantu yu ko jiitoon ñu bari yonantu yàlla noox ak ibrahima ak ñi ca bokk wa ummuhu yaayam siddiqatun dëggalaa kon la kaanaa nekkoon na ñoom ñaar ya ku lan daan lekk taama ñam te lekk ñam da nga soxla wanak yàlla lu muy defee wanak unzur xoolal xoolal kéemaan yow yonent bi kayfa nu bay naka la ñu biralee lahum ñeel leen aayaati aaya yi di tegtale sama kenn su mansur topp nga xool xoolal kéemaan année yu fakkoon naka la leen di wëlbateef walis dëgg ji ànd ak la yu leer nañ yi xool wax leen yow yonent bi ne a ataabuduuna ndax da ngeen di jaamu min doon laay ko dud yàlla amma yéen a ngi jaamu maa laa yem li ko xam ne mënta jañal làkkum ñeel leen daran lor wala nafaan mënul bi jël njëriñ ñeexal leen wallaahu yàlla woo moom dong samihu mooy déggaa kon seen wax yëpp alalimu mooy xamaa kon seen jëf yëpp kon wax jàngoog ayaat yooyu yàlla mbëmbëstal ci mooy weddi gi nasaan yi weddi nga xam ne seen kufru gi dafa jëm ci wàllu uluhiya ñoom dañoo gëm ne Isaa yàlla la yàlla yàlla la si yaayam yàlla la xam naa kon de yàlla ya bëri na kuréel boobu nag ñoom la ngi tuddee yaqubiyatu benn kuréel la ci nasaraan yi ndax yàlla dafa dugg ci aayaat yi laqad kafara di ci dugg bu di ci tudd mbon mbon yi nasaraan yi gannaaw bi mu tuddee mbon mboni yahood yi bokk na ci mbon mbon yi nasaraan yi bokkaale yàlla eh, ñooña nag seen bokkaale ga boo ko seetee dañ caa def ay kuréel xam na ci kuréel boo xam ne dañoo gëm ñett ñetti yàlla lañ gëm waaye ba tey tamit ittihaad lañ xoote rek dañoo gëm ne daal maanaam baay ji doom ji rooxu gu sell gi liñ namm ci baay ji mooy jëmmi yàlla ja liñ namm ca doom ja mooy melo wa wax ja lañ namm ca rooxu gu sell ga mooy dund ga yëpp nag ala kulli haal ak riir dong la noom nag ñu jàpp ne melow wax ja dafa jaxasoo ci jëmm ja comme ni jaxasoog ndox ci soow moo tax ñuy wax ne baay ja yàlla la doom ja yàlla la rooxu gu sell ga yàlla la waaye ànd lii lépp nag dañ leen a toggale muy jenn yàlla loolu réer la moo tax kon yi seen pas pas ak ñetteeli yàlla yi ñeenti kuréel lañ ci def xam na ci kuréel goo xam ne dañuy wax maanaam ci kumu ci ñetti kuréel yi dafay wax ne jëmmi Isa ja jëmmi Maryama ja ku mu ci yàlla la lii benn kuréel la ci seen kuréel ya am kuréel goo xam ne dañoo gëm ne ñett la al wujud ak al mook xayaat lépp lañ def muy ñetti melo yooya ni Isa moom yàlla la moom mi nga xam ne mooy doom ja beneen kuréel ba ne yàlla de dañ koo boole ci jëmm ak ñaari melo jëmm ja mooy jëmmi yàlla ja moom la tuddee baay ja melo mooy wax ja moom la tuddee doom ja waneen melo lañu tuddee dund ga moom la tuddee ruuxul qudsi ku mu ci yàlla la waaye yëpp ak réer rekk la ñi ñu tuddee na yaqubiya ñi ñu tuddee nasuriya ndax kat kàccoor bu mag bu ñu tuddee boolis moo bàyyee bàyyeekoon ci diine yahud ñëw dugg ci diine nasaraan waaye fekk yàq rek ba mu demee bañ fañ ma gisee yonent yàlla Isa mu pendre fa boppam hooteel lak yii nii booba nag ñaari taalibeem la ànd ak Yaquba ak Naasur ñooñ nag kenn ku ci nekk waxam ja ni nga ko déggee nga dem nag commentaire ko mbooloo topp la ca moo tax nga di yaqubiyati yaqubiyatu naasuriyatu yu mel noona yàlla ne lii ñi continuer di ko wax buñ ko daytalut danaa leen ko tali mbugal moo xam ne mu metti métti la jotal na leen ko toroxal na leen ci àdduna boo léegi mu dugal leen safara li wér daal masiix yonantu dong la kom ni yonantu ya ko jiitu woon yaayam dëgg kon la maqaamaam mooy si siddiqiyatu mu wax nag kenn ku ne may gi nga xam kii yaayam di siddiqatu la kii yonantu la doomam gi di mari di di isa yonantu la mu wax nag ñaari melo yañ bokk muy kaanaa yaakulan taama ñoom ñaari ñëpp dañoo bokk di lekk ñam kuy lekk ñam da nga soxla dem wanag kaawteef ci yàlla ji ñuy askane yu suufee yooya yoo tax yonantu bi yàlla ne ko xoolal xool ak kéemaan kaawteef yi teg la sama kenn ànd ak loolu lépp ñoom mu ngi leen du dumoo yu walis loola noona walis maanaam ànd ak barayin yoo xam ne barahinul qaatia la waaye ñoom mënuñ koo gis yàlla ne qul waxal yow yonantu bi yaa ahlal kitaab hee yéen yahuut nasaraan laa taxloo bu leen jéggi dayoo fii diinikum seen diina ji jéggi day goo xam ne xayral xaqi duhu dëgg te mooy ngeen xeeg teg yonantu yàlla Iisaa fu mu heggut yéen nasaraan yi yéen yahuut yi tamit bu leen teg Usayru fu mu heggut waaye tamit yéen yéen yahood yi bu leen teg yonentu yàlla Isa fu mu paase yéen nasaraan yi bu leen teg yonentu yàlla Muusa ak Usayru foo xam ne paase ko lu yàq lépp nag mooy sopp ba teg nit ki fu mu heggut mbaa nga bañ ba teg nit ki fu mu paase lu fi yàqu ñaari rek moo ko yàq maam Khalifa dafa daan wax ne olof mënta bëgg su bëggee fen su bañee fen su bëggee yokkal la defut su la bañee wàññi la loo def loolu nag moo dal yowoot yeeg nasaraan yi yàlla ne bu leen jéggi dayoo ci seen diine jéggi dayoo goo xam ne teguwut ci dëgg yaa ahlal kitaab yee yéen yahoot ak nasaraan laa bu leen jéggi dayoo fii diinikum ci seen diine ji jéggi dayoo goo xam ne xayral xaq duhut bu leen topp ahwaa qawmin bànneexaw nit xad dalloo nit ñoo xam ne sànko nañ min xablu ci njëkk wa addaloo sànk nañ kasiran ñu bari ci nit ñi wa dalloo sànk nañ an sawaayi sabili wala si yoonu dëgg loo ay na rëbbeef na la si nañ nga xam ne kafaroo wéet nañ bani israil ci bani israil rëbbeef na leen ala lisaani daawuda ci làmmeñ yonent yàlla daawuda mu ñaanal leen yàlla ñu soppi leen i golo ca xuru ñu tuddee aylatu rëbbeef na leen tali waa isa bnu mariama isa bnu ma ci làmmeñ yonent yàlla isa bnu mariama mu ñaanal leen ñu soppi leen i mbaam xuux muy asxaabul maida daalika rëbb googa bi maa asaw sababu seen ak mooy boo ko taawilee masdar wa ka nekkoon nañ yaxtunoon di jalgati kaanoon nekkoon tamit laa yatanaahoona duñ tere mooy duñ tere xante ñenn ña duñ tere ñenn ñay def lu bon xan munkarin ci jëf ju bon faaluhu loolu def nañ ko lëbbi sa bon na maa kaanoo la nga xam ne nekkoon nañ maa jëf joo xam ne kaan nekkoon nañ yafaalu na di ko def ñu xasaf ma faol ma moo tax mu ne yow yàlla nekk kataraa da nga gis yow yonantu bi kasiran yatawallaw na ñu ngay jot lante ñu ngay yatawallaw ñu ngay jokkale si nga xam ne kafaroo wéet nañ ci waa Màkka ya su ko defee tamit jot lante ak mbaña rek la sa bon na maa xaddamat la nga xam jiite na ko loolu ñu an fusum seen bakkan ci mooy ci noonoo la an saqita moo waral loolu waral ba sànji laahu yàlla xaleem ci ñoom wa wahum ñoom tamit xaal doona woy béel lañ fil asaabi ca mbugalam yàlla ma walaw kaanoo buñ ne ko yoomi noonu di gëm ci yàlla wan nabi ak yonantu bi wa maa ak la nga xam ne unsi la wàcceef na ko illee jëm ci yonantu bi mattaxasuuhum duñ jàpp xéeféeri màkka ya awliya ay xarit walakin na li fi nekk seen lu bëri mi nun ca ñoom asquna ay kàccoor lañ rek loolu mooy li gën a wér kon ku gëm yàlla du xaritoo xaritoo ci ku gëmut yàlla mbool mooy wax ja kenn ku ne ka nga xàndak rek ngay xàndak loola kon lislaam bañ na ko tere na ko nañ gëm yàlla jël julli ñi nekk suñuy mbokk ñi xaritoog moom xaritoog yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak képp ku ko gëm ku ko weddi nañ ko bañ te xam na yàlla doy na ak yonentu bi ak i jullit ñi ku leen xam wéetuloo laa tajidu qawman yuminuuna billahi wal yawmil axiri yuwaadduuna man xaadallaaha wa rasulahu walaw kaana abaahum walaw kaanu abaahum aw abnaahum aw ixwaanhum loolu mooy dëgg waaye nag jullit laa sa xol bi am xiis ci sa moromam jullit ñi sa xol bi am ak cofeel ki ñu duwut jullit doo tuus lay tekki ashiddaau alal kufaar ruhamaau baynahum loola mooy melokaanum jullit safaan ba nag moo fi nekk ashiddaau alal mu'miniin ruhamaau alal kaafiriina daanaka fu ni moom la jullit ñu bari ju maanaam melokaanoo boo gisee tamit loo xam ne des na kafun bani Israa'iil la seen Daawuda xisa la yonentu yàlla daawuda nitam ña di yahood ya nekkoon ak moom ñu yónni woon ko ca moom dañoo ñëwoon laaj daawuda ne ko yàlla moom kañ la commencé bind àdduna bi daawuda na ne leen dimaas kañ la pare ñu ne ko àjjuma samedi ñu ne defut dara ñu ne kon nax nu abnaawu laahi wa ahibaawoo dañoo am ay mool lañu woon te yàlla saa yu nammee xalak aw xeet dafa leen di tere dara ba pare bëri ko ci seen i bët ba duñ ko mën a moytu bis yëpp jën du xam samedi rek jën ya bëri lool ca dëkk ba bay tuuru dëkk ba def ñetti xaaj benn xaaj ba gën a bon gas ay pax jën ya dugg ca samedi bu dimanche ñi rëbbu leen xaaj ba gën a baax tere leen ko ñu ne ak ah kay dañoo tere di rëbbu sa samedi jën waaye ñu fexeel jën yi fexeel samdi jën fexeel jën yi samedi kenn terewut ñu ko waaye jën yoo gas kay mu dugg ci kaaw ci pax ca bisab samedi ba génnut ko ba dimaas nga jël ko keroog samedi nga ko rëbb ñooña nag ba a tere ñi tàyyi ñi gàddaay tuxu bàyyi leen fa beneen xaaj ba ne ñun de terewuñu ñun de gàddaayuñ kuy rëbb ku ne soo amee mëccaat boo ñu mayee ñi lekk yàlla nag ba mu wàccee mbugal ma soppi ña doon rëbbu ay golo ki mbaam xuux ña leen tere woon gàddaay mu musal leen ña noppi woon mu noppi ca ñoom noppi ga nag la gën a wér dañ ne mbugal rek la ndax fu ñuy defee lu bon nga noppi ca yaag ñoom yéen a moo tax yàlla ne kama laxan naa asxaaba sabti ñooñu la ca namu yonentu yàlla ay saa timit soppi woon na ñu tam ñu ay mbaam xuxi ak ay golo danaa ca ñëw ca kanam bañ ko ne ko ndax jaral nga sa borom mu wàccee ñu maay data mi na sama mu ne ah bu leen laaj miraakal miracle sa laaj miracle ab yonantu boo xamee bu buñ ko weddee mu xalak leen yàlla xalak leen ba miracle ba ñëwee ñu weddi ko yàlla soppee leen golo ak ay mbaam xuut danaa ci ñëw ca kanam balaa saar jeex da si ca su ko defee nag golo yooya ñetti fan lañ xam ak mbaam xuut dee waaye nag tekkiwu ne golo yooya ñoo meññi nit ñu ñuul ñi li ko noonu danga gis golo gu silwiise ba soppeeku nit wala nga gis nit ku salte wàccee boppam ba soppeeku golo comme nag nit mos ta nekk golo su boobaa kon golo tamit mën ta fexe ba nekk nit kon day tekki ne kenn ku ne bàyyi ko ci sa morom rek lay tekki ci lu man mantiq loolu lañ ci mën a déggee su ko defee kon nag li occidentaux yi di wax di xëm di ngi ñuul naan ci golo lañu bàyyi ko wax ju bon la du dëgg ñoom kay wax dëgg yàlla sax ñoo gën a niru golo boo xoolee seen bakkan yaag seen bind ba waaye nit ku ñuul kay sori na golo ci xanam yëpp nag dëgg dëgg nag dañoo xeeb waaye loolu ñuy wax dara amu ci su ko defee kon nag moo tax waaja ba ba ba merloo sëriñ ba sëriñ ba ko naa la soppi golo mu ne ko ah ni golo yi bëree te yàq rek lañ man comme man nga maa soppi golo ngaa jël ci golo yi nga soppi ci nit yokk nit ñi moo gën nga may soppeeti golo di yokkati golo yi rek yàq gi gën a bëri loolu sëriñ eh, rafetut di sëriñ ba gag xam ne wax na ko dëgg kon waxi caaxaan rek la nag kon xisa boobu loolu lay junji la tajidanna ashada naasi adaawatan xisa la sababu nusool bi yàllaay xamal yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñetti dëkkandoor nga xam ñaar ña dañ laa bañ kenn ka moom am nag cofeel ci yow am ko ci sa nit ñi ñi la gën a bañ gën a bañ say taalibe mooy yahood yi ak musrikuuna yi ñi nga xam ne nag ñoo gën a jege cofeel ci yow ak jullit ñi ñooy nasaraan yi te loolu lépp nag weddeeg nasaraan yi moo gën a tar weddeeg yahood yi ndax weddeeg nasaraan yi dafa jëm ci wàllu uluhiya ñoom dañuy nekk jële Isa ak di leen def ay yàlla weddeeg nag yahood yi dafa jëm ci wàllu nubuwa lu rek la kon bii moo gën a xoyof waaye ànd ak ba muy gën a xoyof yëpp ñoom ñoo gën a bon lu tax ñu gën a bon dañoo jikkoo jikko joo xam ne koo xas jikkoo yaa gën a bon ci nit ñi mooy bëgg a àdduna nit ki bu xasee bëgg àdduna rek xeeti mbon yëpp ñëw këpp ci kawam moo tax yonentu daan wax ne xubbu dunya ra'su kulli xati'atin bëgg a àdduna mooy bopp mbooleem ñaawte fi moo tax biñ bëggee àdduna rek danga bëgg dund danga bëgg alal danga bëgg daraja da nga bëgg tur te yii bu xasee nekk ci yow mënoo ñàkk xañaan mënoo ñàkk soxor te boo xañaanee ak soxor mënoo ñàkk lekk xal li jàmbur mënoo ñàkk faat bakkan moo tax yowoot nga yëg nga ñàkk yëg boo demee ci téere bu ñuy tuddee jaamiul kabir day la mi yu ma ngi cay wax ne amul benn yahood buy wéet ak jullit ñoom ñaar rek ñi wéet lu dul ba xelam nekk na ci ray ko fu mu gisee alalu jullit xelam ma nga nekk ci sàcc ko wala mu mën koo fëkk bu demee nag mënul laa rey mënta yàq sa alal fu mu nan nekk ma nga yàq sa der di la wax wax ju ñaaw loolu kenn mënu cee mucc ñett yi kenn mënu cee mucc ci ab yahood ab yahood ku jaxasoog moom boo wéete moom bu bëgg laa rey mbaa mu bëgg jël sa alal sàcc ko mbaa mu fëkk ko wala mu yàq sa der wax la wax ju bot kenn mënu ci dara moo tax kon lu yàlla bind yahood yi ñoo ci gën a xées nasaraan yi nag am na ki ñoo xam ne du ñëpp nag waaye am na ki ñoo xam ne nag bëgg nañ jullit ñi ñu ne sax nasaraan yi xam na ki ñoo xam ne daanaka yahood yóbbuluñ leen dara diñ namm ci nasaraan yi rek mooy waf du délégation mooy délégation najaas ba bàyyeekoon Éthiopie loolu tamit xisa bu gudd la yonantu lañ ko yónni rek juróomi at ci yonantoom gi daal màkka di sonal ay sahabaam léeg-léeg nga rombam xéeféer mu pes la wala mu xaxtandiku tafli la wala mu saaga la ñu dem a dem a dem ba xajatuñ fa jullit ñi xajatuñ màkka ñu def délégation ñoo ci yontu mu ne muñ leen ñi leen jiitu woon dana am ko ne gëm naa yàlla rek ñu jël si yi ñuy xaree bant kar boppam bi ba ci yaramam ñaari xaaj taxul mu weddi yàlla yéen xeggagu leen foofu dem leen ngeen muñ ñi waxaat ko ko ba mu ñetti yoon mu ne ah solution bi ma gis daal Éthiopie am na buur ba fa ne turam dëgg mooy asxam asxamatu nag mooy atiyatullah la ak yàlla lay tekki ci euh, langu Éthiopie boom de du tooñ te duñ tooñ fa moom ku maandu la ab nasaraan la nag dem leen ngeen gàddaayi fa aa ba yonentu joxe ndigal yoon wu njëkk wa fukk ak benn ñoo demoon waaye nag bañ demee ñi dalal leen xamuñ benn jafe-jafe ñu luye gaal fay genn wàllu diinaar lañ fay waaye mujj nañ di dem di dem ba mujj mat juróom-ñett fukki góor ak fukki jigéen ba ñu demee nag buuru Éthiopie ba dalal leen yaatal leen lool bañ yëgee seen ak dem nag yoo yooma xéeféeri màkka yi ñu ne njaaxum am na yonentu bi ba ko yàlla yónnee léegi juróomi at diine ji passé na continent wu Asie dem na Afrique xam nga Afrique gaaw naa jot ci diine ñi hebal ñaar ñi gën a mën a wax kii di Walid ibn Mughira kii di Amaara ibn Walid kenn ka tudd Omar ibn al-Aas ñu ne leen dem leen ngeen yóbbu ale jéem a nger buur ba mu fexe ba génne leen foofa ne leen kat buñ ko fa bàyyee danañ yàq réewam ma te buñ déggoon la ñuy wax ci yonent yàlla Isaa mu génnee leen ndax nit ku nekk boo ko bëggee pas-pasam ñi ñëw nag commencé nag bëgg a jaxase buur baak wax ju bon buur bi xoolu délégation yonent bi Jaafar moo leen jiite woon mooy seen porte-parole naa Usmaan demoon na ak soxnaam Sayyidatuna Ruqiyatu xépp ayu ñëwee nag mu laaj Jaafar jaafar ne ko ñun de dañoo nekkoon nit ñu gën a bon ci nit ñi di naan sàngara di sujootal xiram di ko jaamu di sàcc li jàmbur di agressé yàlla baaxee ñu yónni ki gën a baax ci ci ñun koo xam ne dëgg rek lañ xam ci moom jub rek ragal yàlla rek ñu topp ko ñu ko toppoon nag def ñu ay noon saaga nañ ñu dóor nañ ñu yàq nañ suñu xalal ba xagi suñ ci dëkk ba moom moo ñu jox ndigal ñu ñëw fii ne yow doo tooñ te duñ tooñ ci yow mu ne seen yonantu booba moom lu wax ci yonantu yàlla Isa mu ne dafa na jaamab yàlla la fekk boobu suratu Maryama wàcc nañ mu jàng ko waskur fil kitaabi Maryama idin tabasa min ahliha makanan sharqiyan ba jazalika Isa bnu qawlul haqq fi fii yamturun buur ba ronqañey commencé sotteeku muy jooy foofa nag la tuubee dugg ci diine ji bind yonantu yàlla Muhammad leetar ne ko boo may jox ndigal ma bàyyi fi sama nguur gi ñëw topp ci sa gannaaw di ànd ak yow ci xare yi soo ma joxee ndigal ma toog loo bëgg rek laay def yonentu bi ne ko comme gëm-gëma loo ma sori sori ku ma jege nga ki ma jege te gëmul ma lu ma jege jege ku ma sori la toogal foofa nga continuer sa nguur di ci dimbale nit ña fa la nekk saxaaba yu tedd ya mu jigi nag ñi def mu hebal doomam asahar la tuddoon mu ànd ak juróom-ñaar fukki nit ñi war a fa bàyyee ko war a gàddaay si ñëw ma dinatul mun madinatul munawara bañ demee ba ci digg géej gi seen gaal ga suux ñi mujj génn àdduna dee nañ am na sax ñu ne jëkkëri sayyidatuna Ramlatu ca la génnee àdduna ca ñooña am na ñu jàpp ne tamit dëkk baa neexoon mu murtat lu ci mun di am daal Ramlatu bintu Abi Sufyaan amatul jëkkër te baayam a ngi nii moo gën a bañ yonentu yàlla Muhammad ci kaw suuf te yonentu bëggul kenn ku ko séddoo di wéet mu sànni ko buum ba mu ko sànnee buum buur ba la ko wax buur ba yónni abrahatu mu dem heggale soxna si xibaar bi indi xaaleel na ko kado yu bari mu jël kado ya may ko ca mu ne ko buur bi dafa ne bu ma jël dara ci yow ko damaa kontaan rek ku toll ni gën ji mbindéef ku mu sànni buum wallahi soo ma sar xolle sar xolle bu fekkee danga noon nga fecc loo ne danga ko def maa kontaan rek léegi nag yonent bi dara jaale lee takk ga najaasiyu la ko jox su ko defee nag moom mu ne ko na tànn kum tànn mu mayal ko ko su ko defee tamit nag najaasiyu la yonent bi tànnoon sallallahu alayhi wa sallama mu huutu ko ca euh, palaasam ba takkal ko sëy bi mu bàyyale ko ko teraanga yu nekk najaasiyu def na ko ca najaasiyu mii nag ndeysaan foofu la nekk ca Éthiopie sonn te gis yonantu ba génn ba génne àdduna yonantu bi tàggee ko saxaabaam yi ñu def ñeenti sàppe mu taxaw ca kanam di leen jilli di di ko di ko jiite nga xam ne kenn du yonantu bi saafiyu ci la bàyyeekoo ne man ngaa jullee néew boo gisut maalik ne xusuusi yonantu bi dong lañ ko jagleel jullil néew boo tiim néew boo tiimut nga ñaanal ko maalik saafiyu ne yonantu bi jullee woon na jaafar at tayaar ba mu génnee àdduna ca xaswatu mutata jullee woon na Seyd ibnu Xaarisa ta génnee àdduna Malik ne yàlla moo ko defaloon tawil bu xaabala ñoom ñëpp jàkkaarloo na ak seen koor yi ñun nag comme xamuñu may googa nañ jullee kuñ jàkkaarloo ak kooram kuñ julleekut kuñ kuñ kuñ mënta jàkkaarloo moom ñi bàyyi ko léegi nag najaasi yu tuub na ca la nekk ba génn àdduna waa Makka seen délégation ba ñu yónni woon ñaar ñi nekkoon ca Walid ibnu Amaaratu ibnu Walid tabaarakallaahu ak Omar ibnul Aas yi eseg nañ bañ esegee nag seen mbir yàqu na buur bi toroxal na leen ne leen dara ngeen mënul ci ñi tey maa leen garante kenn du leen laal léegi nag Omar ibnul Aas yi borom pexe la woon mu rëy rëy rëy mu ne ko Ammaaratu yow ku rafet nga te buur yi seen jabar yi ñoo leen xilif del dugg rek ci néeg néegi di néegi jigéenam ñi bu yàggee jigéenam ñi dañ la bëgg buñ la bëggee buur bi bëgg la ñu ngi ko ko ah xamaaratu nag foog na kii li wax dëgg la fekk fexe rek la léegi-léegi mu dugg ci kër buur bi nangam ak nangam dem di dugg ko noona ba benn benn Omar ibn al dem ca buur ba ne ko xamaaratu mii ab kàccoor la soo ko moytuwut dana def naka su dul ak sa soxna yi xoolal li dañoo ànd bàyyi koo màkka moo tax kon pexe mañ doon pexeel saxaaba yonent yu mujj ci seen kaw ñoom ñaar ñi ngay pexelante benn guddi rek buur bi génn rek seen amaaratu génnee ci néeg benn soxnaam xéexée ci la ko jàppalu ñi wal awra ja ba biir ba niwi ñu sànni ko ci géej gi toroxal ko fa la doxee moom xal ko moom mooma nag bul fàtte ne maam xalifa waxoon na la ne le ba waa abu waa délégation Màkka ba ba mu tàngee moom lañ xommatoon ñëw indil ko euh, abu taalib ne ko ngaa bañ wéet jëlal xamaaratu ibnu walid te jox na Moustapha xamaaratu ibnu ba bari lal Moustapha waaye wa asaawoo dëgg dëgg ñaawal nañ amaaratu moom na ku rafetoon la waaye Omar ibnu Aas mujj na tuub dugg ci diine ji kon tamit gis nga ko yàlla ngoog moo ak leeram ku ko jox rek nga dem kon nag xisa boobu lay junji ci euh, maanaam noonoo ak yahood yi ak noonoo nasaraan yi moom lay yàlla di wax si nii ne la tajidanna wallaahi da nga fekk yow yonantu bi asada naa si gën caa ta